duggagunu ci mooy lu jëm ci wàllu datu élection yi beneen bi ci topp mooy loi d'amnistie bi nga xam ne président de la république annoncé na ko voilà foofu laa bëgg ñu daal di euh, ñëw euh, ni ki démb bi muy tëj euh, jotaay bi nee na dina jébbal waa assemblée nationale loi d'amnistie ndax ñu mën ko voter waaye loi boobu li mu ñeel mooy day couvrir les événements de 2021 à 2024 Euh, est-ce que c'est pas un deuxième enterrement pour les plus de cinquante morts des manifestations. mais Nabokor le président de la République Macky Sall. Mhm. je le comprends ci benn côté. bëgg na dem te bëgg na demam rafet donc bëgg na rafetal ci ginnaaw balaa moo dem mais dafa am loo xamante ne ñaaw na ba noppi neexut a rafetal. Mhm. li ñaaw ba noppi li neexut a rafetal mooy diggante deux mille vingt et un ak deux mille vingt trois ba ci deux mille vingt quatre kii. Mhm. li ñu fi jot a ñàkk ci ay bakken dafa bari dama ne waa ñooñu nga xam ne seeni doom wala seeni njaboot danoo faatu ci xew-xew yi fi amoon ñooñu dañuy jàkkaarloog ñoom ne leen baal leen rek mu sedd bu jeex après bu jeex. mais mënuñu comprendre ne famille yu ñooñu liy dalal seen xel ak di dalal seen xol na bu koor mooy ñu defub àtte defub gëstu ba situer les responsabilités ba ñu xam ni mhm. impunité amul ci réew mi mhm. parce que faut pas que impunité am ci réew mi on n'est pas d'accord pour que des choses comme ça soient impunies ay nit ñoo xamante ne faatu nañu ci ay manifestations ubbiwuñu ab enquête defum lu gëstu ñu ne ñoonu nañu raxas nañu baal nañu baalaan te daal mu jàll nañu bàyyi lépp mu sedd waa ñoo ñu li nekk ci seen i biir xol mën nañu ko bàyyi mu sedd c'est pas possible ci manifestation yi nga xam ne ay nit seeni i alal yàqu na ci ci dëkk bu metti bii dëkk góor góorgóorlu bii dëkku bu ak essence ak xaw ma pétrole bi ñuy taal ak di ko tiitaroo nii mais terewul tey la góorgóorlu yi gën a sonn mais dëkk bi tey la gën a xonet tey gën a metti maan. Mm-hmm. <laughs> non bay ñii seen i alal yàqu waaye ñooñu duñ leen dédommagé amul dédommagement dara du leen ci fekk lu ñuy def dañuy baale baale mu dem ok léegi ñi nga xamante ne jot nañ leen jàpp leen ci kaso bi te defuñu dara nag ak ñi ñuy jot jàpp tuumaal leen yàq seenu der ba noppi nag seen der gi yàqu na ba noppi ndax tuumaal nanu leen ci ay mbir yi garaaw yu am ci réew loolu tamit dañuy bàyyi bu sedd. ak ñi génn naan dañ dañ leen doon torturer. loolu tamit day sedd dañuy baale mm-hmm. tout ça pour le pardon. non il faut ah, au moins qu'il nous précise qu'il nous précise au moins qu'est-ce qu'il veut pardonner. finalement est-ce que le CPI mooy def effet. oui non non mais c'est-à-dire mais il veut pardonner quoi euh, qu'est-ce qu'il veut pardonner et est-ce que c'est à lui de pardonner la vraie question mooy est-ce que moom moo war a baale. Mm-hmm. wala askan wi ñoo war a baale. ci par rapport ak li ñu dund lépp. parce que les responsabilités sont partagées les douleurs également et les douleurs sont toujours présentes loolu la c'est que li ñu war a comprendre mooy baale góom boo xamante ne ba tey góom baa ngi fi badu wéragul boobu góom mënta mënu mënoo koo baalee noonu nañu waxante dëgg baale loo xamante ne nii ay moo moo conduire à des situations politiques situation politique yooyu puus nanoo puus ba mu jur ay noonoo dëgg-dëgg ci diggante ay nit jur ay noonoo ba am ci ay nit ñoo xamante ne ñu ngi tëdd ci biir kaso bi à l'heure actuelle où nous parlons te pourtant ci ñi ñoo ñu tëdd am na ñoo xamante ne sénégalais yi ci ñoom lañu ñu wéeroon seen i yaakaar ñu ne nañu baale yow yaay baale wala ñii ñi ñooy baale ak lan la ñuy baale waaw est-ce que du baale sax nag pour ragg deram ndax gis nañ dossier bi nga xamante ne Juan Juan Branco euh, jébbal na ko CPI te euh, gis nañ ni ay jéegoo ngi taxaw ndax saa su ne preuve ya ñu ngi dem te ba tey euh, série de manifestation bu amee takk der yi di continuer di di di di di maltraiter peut-être ñi nga xamante ne ñooy nekk ci mbedd bi ndax gis nañ révélation yi jot a génn est-ce que du CPI finalement pour bañ CPI atte leen moo tax ñu ne nañu nañu introduire une euh, benn benn benn loi d'amnistie bu leen di permettre ñoom ñu raggu seenu der ma ne na bu ragg seen der moo yombul beneen bi ci topp mooy wax naa ko fii cest di dire que Nabou mhm. gis nga am réew bu ñu ko dee tabax dañu ko dee tabax ci ay jikko yu baax te dafa am ay jikko yoo xamante ne badu loolu jarul ñu koy jarul sax ñu koy promouvoir mhm. Nabou lu dul yoon danoo war a wax ne lii du yoon li jot a xew ci dëkk bi diggante vingt 2021 ak léegi bari na ci wàllub lim ci wàllub scandale ci wàllub rapport ci ay nit ñu gaañu ñu génn seen ñu génn àdduna ñi nga xamante ne tëj nañ leen ci kaso yi ñeneen ñi nga xam ne seeni i alal ak seeni i yàqu na ñooñu ñëpp na bu ko wax dëgg yàlla laa ne seen i góomu xol dafa wéragul ba ñu war a mën a baale ak a jéggale ñoom kay lii mën a tax muy seddal seen xol mooy ne xanaa am na si boobu lan la ñuy amnistie en réalité c'est pour ça que je voudrais que le président précise li nga xamante ne moom mooy euh, loi d'amnistie boobu muy wax lan la concerner exactement mm-hmm. quand il parle des faits qui se sont déroulés de 2021 à 2023 il y a eu beaucoup de faits qui se sont passés il parle de quels faits mm-hmm. et de quel pardon mm-hmm. et lui il pardonne à qui et moom nag la vraie question mooy qui lui pardonne qui lui pardonne tout ça c'est des questions à prendre en compte mm -hmm. donc euh, sincèrement c'est fatigant pour les nerfs euh, metti na trop vraiment ci ci ci ci ci wax ji metti ci ci di xool di supporter metti ci di jéem a comprendre ak di jéem a situer li nga xamante ne moom mooy en tout cas jéem a jéem a résoudre li nga xam ne moom mooy li xew foofu yépp déema mais daal man daal Nabu Koor léegi nag il faut attendre de voir euh, en conclusion ñoom bu ñu jàppee seenub date ba noppi ba fësal ko sunu voilà non ñoom seenub dat noo koy nekkatul sunub date mhm. ñoom bu ñu jàppee seenub date ñoom ba noppi d'accord waaw ñu jàpp seenub date def seen i waxtaan def seen mbir jàpp seenub date mhm. ba nu ko jàppee ba noppi oui très bien léegi problème bi mooy ñeneen ñi nga xam ne ñoo féete ci beneen wàll ki mhm. est-ce ñooñu dat bi dinañ ko nangu parce que déjà aujourd'hui Aar Sunu Gaal dafa décla dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa décidé woon ne tey ça va une journée de une journée par rapport ak activités yi éducation defe naa santé rek lañ ci bàyyi santé rek moo ci bokkul je pense mm-hmm. mais yeneen secteur yëpp commerce ak yëpp dafa dafa jël en compte xam nga ne dëkk bi comme fête gisoo tabaski de y a personne dehors léegi ñoom décision yi ñi def noonu yëpp mais est-ce que aujourd'hui ni ñu ko ni ñu ko seqal mooy les candidats notamment yi nga xamante ne ñoo nekk à la course mhm. est-ce que ñooñu dinañu nangu cette décision là euh, est-ce que réellement lii nga xamante ne moo nekk di am démb nabu c'est mhm. la solution pour régler le problème bi nga xam ne moom la Sénégal nekk nii mhm. moi personnellement je ne le pense pas et j'aurais voulu euh, sincèrement que que que mbir yi dem ci beneen sens malheureusement encore une fois joxaat nañu dëgg ñi nga xamante ne dañoo yàgg gëm ne. Mhm. dialogue yi ñuy wax ci réew mi turub jaloog la rek mais en réalité réglé dara. parce que vraiment bu dee dem fa toog daal di xalamal nit ak di wax nit lu ko neex. Mhm. moo la fa yóbbu loolu moom bul jàpp ne yow boo yéegee sa kër ba tëdd. nga jàpp mhm. vraiment yaa ngi jàppale askan wi ci li nga xamante ne dëgg-dëgg moom lañ doon xaar ci ñoom mooy responsabilité bi nu amoon euh, bu dee waxtaan ak njiitu réew mi itam au mhm. moins ñu am sax benn position bu franche par rapport ak li nga xamante ne ñooy et mu am ay débat d'idées yoo xamante ne euh, politique du ca du ca rax ba bari ca ëpp ba ëpp ca sax laay wax. torop ba dootuñu waxati li nga xamante ne moo nu amal intérêt ak moom nu amal njëriñ mhm. donc euh, encore une fois c'est le président de la République qui qui qui qui sort euh, comment gagnant même de ce dialogue encore une fois parce que ñi fa jotoon na dem lañ doon séntu ci ñoom bi ci bëri amuñu ko à part l'église ñu leen di remercier bu baax ci taxawaay bi ak euh, discours bi nga xamante ne le représentant de l'église def na ko fa euh, un discours qui a été fort en émotion mm-hmm. et puis surtout repris euh, par beaucoup beaucoup de personnes tout simplement loolu dafay wane ne rek ne xëy na moom la mu fa wax loolu mooy li nga xamante ne moom la ñëpp doon xaar ci gémmiñu ñenn ñi mu génn fa waaye daal nu ngi toog di xaar yi d'accord ñu ngi xaar euh, journée tey bi lan moo fay euh, tukkee euh, ginnaaw commission yi nga xamante ne jot nañ ko taxawal pour mën a wéyal li nga xam ni mooy dialogue bi alors Khadija nee na parce que il faut ñu jël leen tuuti nee na loi d'amnistie bi beneen régime buy ñëw mën na ko abroger dëgg la waaye il faut mu jaar ci référendum te tout ça ça va prendre du temps il faut prendre en compte ça euh, beneen bi euh, Djibi Gueye chef de protocole bu euh, Ousmane Sonko moom dafa daal di génn donte moom kenn xameewu ko sax ci ay wax waaye moom bu génnee wax war nañoo mën a gëm ni li mu wax parce que nee na Ousmane Sonko laalewul ci dialogue Euh, nii de près wala nii de loin waxtaanul te nee ca prison bële euh, euh, mu nekk demandé wul benn faveur du moom du jomaay ajaratu indi ay leeral par rapport ak nit ñi naan wala mën naa ko nommer Cheikh Yérim Seck mi ne woon Ousmane Sonko ak Karim Wade waxtaan nañ ak président de la République ci rapport bii nga xamante ne am na. xam nga xam nga il n'a fait rien d'autre que confirmer li nga xamante ne ñu ci bëri am nañu boobu gëm xam nga man moom laay wax ne souvent que ne euh, bu ñu tolloo fii manipulation dafay bari. Mm-hmm. tellement ci ci wàllum xibaar ak ci wàllum actualité de telle sorte que. Mm-hmm. nit ñi dañu war a am prudence kañ laa ko fi doon wax parce que c'était en début de semaine fan semaine dernière. Mhm. laa doon wax naan na nit ñi prudent trop par rapport ak yenn position yi nga xamante ak yenn sortie médiatique yu bëri yi nga xamante ne mhm. dafay am actuellement. voilà yaa ngi koy wax bi nga naan euh, bu ñu ne euh, Ousmane Sonko euh, waxtaan ak président bu amee dina nekkul la jaaxal lool. waaw te nañu bàyyi ba am voix autorisée. jërëjëf. très bien nañu bàyyi ba am voix autorisée. ñu door cee mën a wax. oui mais jibi jibi jibi ku ko xam-xam ne si quelqu'un qui est proche de Ousmane Sonko. Mhm. Euh, bu waxee yenn wax yi mën nañu ko accorder quand même mën nañ ko accorder vraiment li nga xamante ne moom mooy crédit. bi mu mhm. war a am yépp euh, pour être quelqu'un qui proche de de de Ousmane. Mhm. et toujours dit que malheureusement xam nga problème bi mooy. c'est-à-dire nit ñi li ñu bëgg gëm rek la ñuy gëm mais fii Sénégal personne ne jub na encore. Mhm. te concernant Ousmane Sonko kaawam dafa neex a régler. parce que moom euh, moom lay wax bi nga xamante ne moom lay inscrire boobu ba tey dafay tax de telle sorte que man parfois damay dox damay di di di nekk sur sur les réseaux sociaux su ma consulter ba dugg ba gis yenn ancienne vidéo Ousmane yi dama naa kii il a à tout en fait. Mm -hmm. tu as l'impression que moom. il a pris tellement d'avance waaw waxal na boppam mm-hmm. setal na boppam sax setal na deru boppam mm-hmm. avant que tey jii ñu yegg ci niveau de débat bi nga xamante ne moom la ñu yegg nii tey te la personnalité de Ousmane li ñu xam ci moom bañkat gi ñu xam ci moom depuis le début ba mu jural ko li ko dal nii yépp tey xanaa yaakaaruma ni quelque jours en prison wala li mu fa jot tëdd boobu ba tey te nekk fa nekk fa ak itam moroomu goram di Bassirou Diomaye Faye euh, que ne war naa mën a nangu échanger wala jaay ngoram par rapport ak askanub lëmm ngoo xamante ne lu ci ëpp ci ñoom en tout cas la majorité moom lañu àndal moom la ñu bëgg te moom la ñuy topp kon muy mën a waroo ay kàddoom par rapport ak vraiment moom mooy engagement yi donc moi j'ai toujours été très prudente mhm. par rapport ak euh, li nga xamante ne ñu ngi koy wax yépp ci waxtaan bi ni wax ne am naag surtout que bu génnee ci yenn gémmiñ yi wax dëgg yàlla man duma ci duma ci du ma ci dóor sama doom duma ci sonal sama bopp parce que dama naan naa bàyyi daal ba am leneen loo xam ne moo gën a wóor moom la nit ñi di gën a Mm-hmm. gën a gën a tegu gët wala wax dëgg yàlla du am sikki saaka donc c'est bien que Djibril aussi ci contexte bi ñu nekk nii. Euh, waaw c'est bien que mu génn leeral surtout bu fekkente ne am na ci ay xibaar ak ay infos yoo xamante ne kenn amu ko ci. Mm-hmm. Euh, te c'est quelqu'un qui a toujours été très très très ma très proche de Ousmane Sonko s'il di des choses yi nga xamante ne moo jëm ci mbir moomu nanu jàpp ne kon loolu muy wax noonu mën nañ ko apporter du crédit. non moom loolu wax sax parce que moom bi mu koy expliqué nee na man bokk naa ci gën a jege euh, président Ousmane Sonko jamono jure mu dem ba ay que ni am na ñoo xam ne li ñuy wax Ousmane Sonko du dëgg dem na ba cité tour tour ne kooku li mu wax Ousmane Sonko du dëgg <laughs> après dinaa la jox ay vidéo nga xool ko comme ça après. Euh, euh, après ma mhm. ni woon Qatar. Mhm. pas sax seex moom ah. waxul sax seex seex yërëm moom avant sax yërëm lu génn mu mu mu mu mu def ko ci kon donc dafa nekk loo xamante ne sii nii. <laughs> man ni kon dafa dafa nekk loo xamante ni si ñoom war nañ ci mën a jàngat euh, man des fois da ay wax da xam que yow nii mhm. euh, fait doo ko sax gëm mais moom bu génnee mu wax kon donc dafa daf ñuy euh, joxaat li nga xam moom mooy dëgg bi donc dafa loolu dafa war a lancer message si ñenn ñi mhm. toog di wax ci der Ousmane Sonko loo xamante ni c'est pas normal ñu jéem a arrêté wax naa ko fii xam nga président de la république démb sax mu ngi naan xam nga réew mi Sénégal dafa am ñu am ñoo xam ne dañoo am fit non dafa am ñoo am fit dara ci constitution te dañuy toog di wax ci ay waxi constitution mu ne Sénégal dafa bëri ñu am xam-xam mhm. waaw dëgg la nag président surtout génération bu bees bi ceeb bu sew bi <laughs> noonu ñun danoo amul xam-xam nag wax dëgg yàlla naa lu nu gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt xam-xam am na loo xam ne te léegi moom dafa dafa aider sénégalais yu bëri ñu maîtriser yenn termes juridiques yu bëri ci nguuram gii lañu ko xamee. Mhm. waaw loolu mën nañ ko mais nag du dëkk waaw mhm. ah, am na ci ay termes juridiques yu bëri yoo xam ne dañ ko daan dégg rek xamuñu ko woon avant mais yu bëri ci régime moom lañ ko commencé maîtriser. gën a mhm. commencé leer commencé gëstu léegi da ngay wax article sax gars yi vite fait dañuy daw xool feuilleté constitution bi lii bëgg jàngat mën a xool. mais après que l'interprétation c'est autre. mais wax naa fii na mu koor ne. jafe-jafe na ma jël comme avocat. yenn leader d'opinion yi moo man mii. ah, ah mais yow si ñoom laa jàngee lépp yeggali. mami. <laughs> sonn ci napp yenn yenn leader d'opinion yi yenn chroniqueurs yi mhm. yenn waxkat yi nekk ci réew mi yenn politique politiciens yi ñoom ñëpp laa wax nanu maanu ci mbiri Sonko Sonko nag ku maanuwul ci ay mbiram boo ëllëgee di nga matt sa baaram bi cax mhm. loolu moom yàllaa ko ko may moom moom moom loolu moom yàllaa ko ko defal yaa ngi dégg. Hmm. kon nag li may bañ mooy ma naar naar yaay lii lay bañ. Hmm. wax leen lu ngeen xam ak wax lu leen wóor ci nit ki walla boog basez-vous au moins ci li nga xamante ne moom ngeen jot a gis bopp ba tey te bu ngeen jot a gis na bopp ba tey du ngeen gis leneen lu dul constance. mais Sonko sax man dama gëmul que ni war war na mën a dialoguer quand même. di ko defaraat ñoom ñoo bañ. moom mi doon defendre boobu ba léegi comment il mu ñëw na day dialogué tey quoi Ousmane Sonko man c'est yeneen candidat yi ñoom ñoo ñëw ne ñoom dialogué wuñu moom waaw moom moom mi doon bañ boobu ba léegi mu ñëw ne day jaloge tey loolu c'est contradictoire quand même jàpp ko <laughs> mbaar bañ ma baal ma nga ne ko ma ne ko moom sax dialogué dialogué jàpp ko du dëgg Euh, boo amul beneen question. Euh, juste que euh, beneen question rek bu bu mujj. Eh, muy kii <laughs> naa la kay ma xëyee yedd naa la yow it nag. waaw benn rek benn rek benn rek muy dialogue bi président Macky Sall woote. waaw bi yu loolu est-ce que nekkul tamit. pour euh, euh, ràgg deram la au niveau international. Mhm. parce que bu li fi xew yëpp buñ xew ñu ne président kat woote na dialogue ñëpp parce que salle bi dem feesoon na ñëpp wuyu si nañ ko waxtaan nañ jël nañ date et comme ça loolu est-ce tamit luy wàññi benn poids bi nga xamante ni nii au niveau international ñu ko waroon xoolee. enfin euh, niveau international gaw mën ne mu enfin wàññi poids bi mën na nekk peut-être d'un côté mais si c'est des gens qui suivent de suivre. li nga xamante ne moom mooy actualité bi war nañu xam ne ce dialogue là c'est un dialogue qui a été fait sans la majorité des candidats validés par le Conseil constitutionnel mm je ne pense pas que ça soit un avis positif mm-hmm. war nañu ma si mën a xam aussi ni ce dialogue là c'est un dialogue qui a qui a été organisé sans la participation d'une partie d'une certaine partie de la société civile yoo xamante ne c'est des gens qui étaient présents à l'ancien dialogue xam nga bu fekkente ne danga bëgg da nga bëgg da nga bëgg def euh, benn analyse par rapport ak benn situation forcément il faut nga def benn étude comparative surtout que dialogue bi passé dafa yàggul woon donc dialogue bay yàggul dialogue bu bees bi ñëw boo dee xool par rapport ak liste de présence bi ñi fa nekkoon bi passé ak ñi fi nekk nii di nga comprendre ne et d'ailleurs ak ambiance su bi sax di nga xam ne fii dafa rax politique ci lu ëpp bien que amoon na nag ay nit ñu bëri ñoo xam ne déplacé wu nañu dem et loolu man duma leen ci je je l'en je l'en veux pas parce que démocrate que je suis j'accepte que mënuma bokk opinion ak gis-gis ak ñëpp te xëy na peut-être yéene bi ci seen yéene bopp moo nekkoon xool naka la ñuy def ba génne Sénégal ci gouta gi je le leur accepte mais le fait est que aujourd'hui l'opinion internationale retiendra que la majorité aussi presque du peuple sénégalais n'est pas d'accord pour ce dialogue loolu même booy déglu yenn débat débat yi da nga koy gis dafa dañ koy ressentir que ñu bëri d'accord ñu ci waxtaan bi parce que gisuñu utilité waxtaan bi et finalement est-ce que ñi d'accordul woon ci waxtaan bi yëpp amuñu dëkk badu mm-hmm. mm-hmm. comme mon président nee na moom mooy jàpp date décret bi moom moo koy bind pourquoi appeler à un dialogue pourquoi rawatina bi ñu tuddee waxi amnistie mu ne mu neex nit ñeek mu naqari leen dinaa ko yóbbu assemblée nationale ñu voté. pourquoi mënu woon jàpp date na bu respecter délai délai délai délai bi constitution bi tënk organiser et élection jarul woon a woti dialogue nag ba jëm ñaajoo nañ waxante dëgg. kon dinaa leen woo déglu leen waaye je vais pas prendre en compte lépp lu ngeen fi wax. dinaa voté tamit loi amnistie dinaa wax samay député. président député yi dëgg la nag xëy na sa parti la ñu wund waaye député bu ñu xasee ba dugg assemblée nationale dañ ko tudd say député day mhm. député askan wi la dañu waxante dëgg tam mhm. xam nga loolu yëpp nag c'est des c'est choses yoo xam ne sa va peser sur la balance Bado mhm. l'opinion internationale va peser le pour et le contre l'opinion internationale aussi ne peut pas euh, omettre ou oublier li nga xamante ne moo fi jotoon xew yëpp en termes de crise et cette crise là on y est bateau bi nii lay def rek na bu day tàngee nii rek lay def day tàngee. Mhm. taxawul benn place bu ñu mën koo stabiliser. Mhm. ndeysaan mu may fàttali woyu Pape Cheikh ba woon mu mu naan wax bu nu bu nu bu nu wengal gaal gi. te mhm. gaal gi yàgg naa weng day tàngee dañ ko war a jubbanti nag mu taxaw benn côté. ñu xam ne gaalub Sénégal gii moo ëpp njëriñ ak ëpp solo lépp loo xamante ne war na fee mën a nekk ci réew mi ñu war koo mën a waxtaanee ngal la ngir yàlla bu ñu ci dee xool nañu jël en compte. Euh, vraiment par respect pour ces morts mm par respect euh, ci douleur yi ñu jot a dund lépp ci Sénégal par respect pour cette nombreuse crise et cette situation de tension dans laquelle on est plongé depuis un bon bout de temps et que lui il a la volonté de décrisper décrispation boobu itam pour man la suite logique c'est vraiment organiser des élections à temps mm-hmm. et qu'il puisse partir à temps mais ça je ne pense pas que ça va se faire voilà da koy doggali wala. <laughs> <laughs> xam nga kii dégg moom ma gën a doy waar xam nga man léegi dama yaw man benn question laa lay dugalal introduire. Nabou yéen a yem. yow ak Badou. ndi xëy ndax. yow yaay yi nga yi yang xam nga <laughs> mooy yong benn ngeen. Corée du Nord de nga jëm vacances. du ma fa dem de ci kàttanu yàlla ci des yàlla na barkeel. du ma de ci kàttanu yàlla. jërëjëf ah, a jege nga xam nga li ma la wax. Ah, yàlla baax na ñu nga tàggatoo ba ëllëg yaay sañ nekk fan yaay ci dara de. Ah. <laughs> tàggatoo ba si lan jàmm. balaa <laughs> Badou sol ay lirite per castor yi. jël bëtam yi sew yi ba mu mel ni bët yi comme petit petit xool ko bu reetaan ne bu bët yi wéer ci biir li ngeen ci. non mais mi mais mais kenn waxul mi ñëwul moom kay weesu mi ñëw mi lu ko def. yi kay xanaa xamoo yaa ngi fàttaliku ay dessin. mi ñëw mi ñëw mi ñëw mi ñëw mi ñëw